خيتك وعلى النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا جاي accident yi ci ndox mi accident yi ci tali bi xam nga lan moo koy dindi mooy li mag ñi nekkoon yi asura mag ñi daan nañ ci def way woowu sum salli sil zur aliman ud wabtahil رأس اليتيم امسح تصدق واغتسل وسع العيالة وسع العيالة قلم ظفرة وسع العيالة قلم ظفرة وصورة الإخلاص ألفا تقرأ gis لي فد fekk delloo si wuñ ko ci xam fu ñu jëm lépp delloo يزور عالما زياره بروم خم خم بدا بنيتل بموي آه، راس اليتيم يمسح موي نيخال نجيرم نيخال كو نجير زور نيم نيخ بدا دا ماي لاج دي نخ بدا benen bi moy waqtahil tusngal amna ñu mu jaaxal yonenti bi neena de len tusngalu ndax dafa bax ci bët da koy faj da koy leral ndax lolu bi daal benen bi moy yonenti bi sala leneen li nga xamni ne wasi al iyaala togg ñam neex wu doy sa njaboot lek ba sur ndax lolu bi daal xallim lel li say we way way ay we yu melni wewi ñay wala yu melni wewi gayde nga ye nga li ko ndax lolu bi daal bu fukk bu bu bu fukk ak ñaar bi may tëjee mooy suuratal ixlaasi alfan taqra suuratul ixlaas benn bi yonent bi nee na walladi nafsu muhammadin bi yadihi innaha la tuxdila sulus alquran benn xul wallahu ahad boo jàng am nga tiyaabay ku jàng un tiers kaamil ñu ni la toogal benn bëccëg nga jàng ci junniy kaamil ñu bëgg ñoo ray ak bidaa bidaa bidaa bàyyi leen ñoog suñu bidaa yonent bi neewul man ahya sunnatan hasanatan déedéet dani man sanna sunnatan hasanatan képp ku sos lu rafet kon loolu mag ñi dinañ ci dellu yàlla yàlla def ci réew mi jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ala nabi wa alayhi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 سن لخي شك وعلى النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا جاي